ginnaaw njàngum alxuraan bi nga xam ni ndaw yi amaloon nañ ko ci cérémonie de lancement pour gunge bépp daara boo xam ne nekk na fii ci Sénégal Cheikh Omar Anne moo ngi xamle lii di cartographie bu ñu tëral ngir mën a gunge daara yépp ma fekkee ndaje bi nga xam ne mooy tàmbali liggéey bi ñu war a def ci cartographie dee daara maanaam daara ji daal ci fi mu nekk ak na mu nekk naka la bile cartographie dara taxu koo jóg lu dul ñoŋal ak condition yi nga xam ni ndaw yi ñooy jàngee ci alxuraan yi daal di yokk waaye yokk xam-xamu ñi nga xam ne ñooy jàngal ndaw yi alxuraan bu ñu sukkandikoo ci partenaires yi Ce site est un moyen de permettre lu ni mel ab jumtuwaay la buy may xale yi ñu wàccook seen àq ak seen yelleef ci wàllu njàng mi bu ko defee nag noonee nga xam ne la ko convention bi ëmb euh, àq ak yelleefu xale yi sàkko dina may it ñu daal di recruter juróomi téeméeru sëriñ euh, ba noppi nag ci téeméer boo jël ñaar fukk ya ñu jegleel ko financement bu jëm ci wàllu njàng meek njàngale mi. ci képp koo xam ne da ngaa nekk ci daara ci la Cheikh Omar Anne daal di wax njaxiñ li nga xam ne cartographie bi moom la làmboo. su fekkee dañoo bëgg a yar suñuy xaleel jëwrin bi ñu dénk wàllum njàng meeg njàngale mi daal di doon programme bi ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mai ci atum 2023 fële ca institut islamique bu dakaar cartographie bi dina tax ba gouvernement bu Sénégal daal di man di xayma bépp daara boo xam ne nekk na fii ci Sénégal waaye tamit dinañ gën a mën a taaral bërëb yi nga xam ni fa nañuy jàngee alxuraan daal di dooleel bu baax njàng ak njàngalem alxuraan fii ci Sénégal waaye tamit jàppale bu baax sëriñ daara yi ngir ñu mën a gën a mokkal alxuraan ba mar jàngal ndaw yi ci anam yu mucc ayib